kontaan nañ gis la fi. gis la ngeen di kontaan maa bu baax Aïda. alors ban catégorie lañ la nominé déjà. j'entends bu ñu euh, <laughs> euh, vidéo. bu tudd RBG bu génn mois de juin bi passé waaw. alors nga gisee compétition bi. Euh, fait plaisir euh, shout out équipe bi koy organiser on a besoin de suñu liggéey ñu ñuy ñu ñuy ñu parce que liggéey bu métti métti la on est dans un pays boo xamante ne on est un peu laissé à nous-mêmes on est presque tous des indépendants ñooy demal suñu bopp ay hustlers lañ ay guerriers lañ ay indépendants lañ donc loolu dañuy soxla des fois nit bu liggéeyee nga ko gàcce ngalaama bravo. AIBG bi nag jur na polémique mu soo wax coow li bari na euh, clip bi est-ce que doo si ñëwaat tuuti. waaw clip bi euh, c'est un son boo xamante ne dama ci waxaat un peu sama jaar-jaar. li ma innové ci game bi li ma xamante ne def naa ko euh, parce que daf ci daf ciy baax des fois léegi léegi rek maa ngi doon waxtaan ne que dañuy am des fois problème mu archivage gars léegi dañuy gën dañuy gaaw fàtte alors que ñun dangay ñëw rek yeggali loo xamante ne ñeneen ñu la fi jiitu ñoo ko def bu dul woon ñoom du yombee ci yow noonu quoi ñun tey li ñuy lekk ci rab bi su dul woon les old school les yi nga xamante ne dañ leen doon wax yéen da ngeen dof wala ay drogue ngeen wala yooyu ñoom ñu dëkku loolu noonu yëpp. su dul woon ñoom tey ji ñun du ñu ñemee jël rab def ko suñu métier quoi donc day baax ngay dellu fàttali gars yi ne leen am na loo xamante ne ñun def nañ ko mënoo leen ko fi teggi donc euh, lool rek la woon. mais lancé nga si ay pic nag ñu bëri naan dip ngay waxal nga ka blend nga bëgg a freiner. amul benn pic ay kii la ay ay vérité kese la pic mooy loo xamante ne da ngay jéem a gaaruwaale wala da ngay man teesante ba gaar. nga ne yaa fi ëpp am nga sponsor yaa bokk nga ñi fi njëkk am sponsor yooyu. waaw lépp maa li ma fi njëkk def bëri na du jeex. alors kon pourquoi ngay toog des fois duñ la gis euh, game bi buy tàng yow Elzo duñ ko gis. bon c'est parce que je me sens pas concerné xam nga doo romb rek ay nit di dóorante di saagante yow it nga ñëw dugg ci xeex bi yow yaa ngi dund sa live di am sa live noonu nag laa ko a ah. am classe bi bon amul coow amul lii. bu nekkee waaw waaw ok je suis d'accord. <laughs> alors euh, looy xaar nomination fan nga xalaat nag euh, di nga euh, xalaat nga di je pense ah bon xool ma xoolaat yeneen clip yi fàtte naa yeneen clip yi ñu nominé mais gisuma clip bu daax sama bopp sans arrêt. leer gisuma ko. <laughs> merci beaucoup. waaw maa ngi pare la festival le 24 décembre bu ko kenn tardé dina nekk concert bu graaw bu exceptionnel avec beaucoup d'invités venez nombreux venez supporter le hip-hop Galsen à a du grand théâtre avant boobu nag dinañ avant boobu waaw incha allah loolu kay ci yow la des. merci merci toi vraiment.